Eh, Samb waaw laaj laaj ah naa leen de muy màggal gi de ngi nuyoo ah waaw màggal gi du la onze la côté yooyu la de waaw yow ay côté nga ci xam. ah wóoru la côté daal nga ci sarax bàyyi ma sarax. <laughs> sarax xaw ma la da nga ne ma côté. xam nga Samb. ma lay laaj ndax côté nga ci xam. màggalu daaw bi dafa am ma seetlu. muy. Euh, gars yi nu ñu tere gan yi biir Touba. non moom yàgg na Touba. non loolu yàgg na faay keroog dama dama ko seetlu. dafa soog ma ne waa Touba nag ñu ñuy nax. ah, ah xam nga ñoom sëñ bi daf na teralal leen ma sama sama bis bii. ñoom bu ñuy génn. xam nga lekk dañ ni boo ko boo amee ay gan. waaw jox leen lekk. waaw ku ne tibb ba nga tibb ku ne benn tibb boo tibb rek ay tibb bu ne ay junni junni junni tiyaaba la waaw waaw léegi yow boo ci tasee ku mën a lekk. waaw <laughs> war a tibb. ay soixante dix tibb yooyu. soixante dix tiyaaba. tibb bu ne ay junni junni tiba tiyaaba nga naan ma lan. ah fees na xaw listam day fees. ah listam day fees moo tax ñun ñun ñun Thiès war nañ fa organiser ay gàmmu gàmmu lan gàmmu Thiès ah ñuy jël gan yi di leen jox lekk yi parce que joxe lekk kat dafa baax joxe lekk dafa mel ni Njaasaan la yam Tiwaawoon Tuuba Canaba Laayeen yi ñooñu ñaseen yi ak ñaseen yi waaw li yéegal góor yàlla waaw mooy joxe ñam ak nangu tuuma joxe ñam ak nangu tuuma ak nangu yéegal góor yàlla sànq waaye yow tamit xanaa Mouhamed. waaw ah man ma wax Messi yow selon yow ku amul morom. <laughs> Diego amul kenn du ah, ah, Armando. yéen ah cu. bu fekkoon da ngeen ni Sénégal tudd beneen réew. waaw. kan ngeen yaakaar ni développement mu gën a gaaw. ah waaye déet xam nga lan la. léegi ngeen wax ci football ñooñu nga xam ne ñi ngi ak seen i milliards. waaw ah ñun ñu war a fexe nan la ñuy amee milliards. suñu équipe baa ngi dem coupe d'Afrique ak Samba. waaw alaaj ma ah. dugal ci ay wax. ah, ah ñun Sadio Mané lañ xam ne daal moom léegi xanaa xamoo fii bu ngeen ma fi waxee dara. Ah. li ngeen may wax ñoruma. waaw dama naan sama yoon nekku ci. waaw. foofu nga léegi loolu laa jël. kon yow mënoo yoon nekku ci. Hmm. léegi yow selon yow. waaw xam nga jamonoy Maradona. waaw seetaan naa Maradona. xam nga jamonoy Messi. bu baax est-ce que Diego am na morom. kan Maradona. Messi am na morom. dama lay laaj rek pour yow. jéego ko dàq football. ci jéegoog Messi ngay wax. waaw sama yoon nekku ci. waaye Samb. ok waaw. ngeen def keroog bañ fa amee gan. waaw dama dégg mu ba mu jeexee nga am loo wax. lan laa wax. nga ne Macky sa waaye gis naa la ak Ablaye Wade du bàyyi de. ñëpp sa xarit lañ kii waaw Ablaye Wade déglu dama lay wax. ñëpp sa xarit lañ. Ablaye Wade kilifa la. Mhm. Ablaye Wade. Mhm. kilifa la président de la république la. Mhm. bu nekkee ci beneen réew. man ma dem ci réew moomu. ko. yëg ni moom ma nga ca réew moomu dama koy seeti. dëgg la ko sargal ko. loolu laa la doon fàttali rek. waaye sa xarit mooy. mais moom. Hmm. Ablaye Wade. Hmm. du sama xarit. Macky Sall lay sa xarit. Macky Sall sama xarit la parce que boobu jiitu na lii mu nekk tey. dëgg la suñu xarit la ñun ñëpp. Ablaye Wade nekk na président ba wàcc keroog laa sa a toog ak moom bi mu wàcc ca Dubaay. mu ne la lan sax. loolu la la wax. dafa doon laaj kii la kan. looy wax ni waaw nan la ko doon laaj kon la yaay Sénégal bu bu ma xamul <laughs> mu naan doom ci si eh? ma ne ko leen du ngeen ba ma ñibbi nag man <laughs> ki seet si xamuma ngeen maan maan <laughs> toog mais forcé leen ba waaw ah. waaw Ndiaye tey sooyati nga de sooyu ma ban sooy mais Ndiaye ah Ndiaye cam Ndiaye sa veste Elton John sax mosu koo sol non Elton John daa xam mag la xamul yii nag yooyu lii de mot la a wax ne yow yaa dàq sañ sa Elton John lu mu maa ko dàq sañ mais mais jamonoom. ah d' accord naa. waaw waaw ngeen a bokkul génération rek bokkuñu génération te veste bi nga sol rafet na. merci beaucoup yow xam xam nga ban président ko de la république. waaw. xamoo leen ko. de Mitterrand de damay dégg. bu la Mitterrand François Mitterrand. waaw ko bu la Mitterrand. waaw ak Abdou Diouf borom francophonie bi. dëgg la. cëm kii. sàmm ah, ba. sol ay social ay ay tojale ko ko looloo loolooy tojal sama ganuk tey waaw sooyu ma de gan gu mag laa leen andil tey waaw gan gu nga xam ne yaru na mhm. waaw am na personnalité mhm. waaw am na fulla mhm. fayda gëm na it mën na li muy def waaw ndax nag mën naa ne ba mu dugg see ci woy wi yàgg na waaye daf ne dama ne rapidement il s'est taillé une place de choix dans le monde de la musique am nga gan. Hmm. maanaam. kooku mooy Yoro Ndiaye. oh. Yoro Ndiaye moo nami moo frère. moo wa yegg si. saxaar yi baxaa yaa xaw ma lan saxaar. àndandoo. Eh, eh, waaw. waaw xarit. Ah! xarit jafe naa xarit moo jafe naa. Yoro nga waay. Yoro ñu jaar waay Yoro. Ah! da ngay téye ah, Yoro na nga def. jaar nañ leen bàyyi dama dama yaa def gari yooyu. Njaay jaata Njaay. Marok. kontaan naa de sama xarit. baari kàlla alaaji. waaw fàttali ko Yoro bu ko lekk ko way boobu. Yoro baay bu ko lekk ko. boo ko lekk ko sa biir daw ko lay fajana mag. ma ni moo mag Yoro mi. moo mag bu ko lekk ko. waaw waaw waaw alaaji way nga lu la lu la mag. waaye wu yàgg a ngoog. alaaji yow est-ce que juddu woon ndax nëbbatu. dégg nga mu naan ma ndax juddu woon nëbbatu. alaaji man seet naa sa testani testani man ci. non moom moom moom at yi mu jox moom la amee. waaw mais dafa am ñoo xam ne dañuy juddu dellu. Ah. ñëwaat man du ma or taxe de. seet boobu la <laughs> ah alaaji atu or taxe boo demee da ngaa demoon de. ndax yow a bàyyi bu ko lekk ko de. waaw ah. ca rajo Sénégal bu njëkk ba. Ah. foofu la waaw dañoo am gan boobu da daan laxasu ñu koy kii dañoo am gan suturaal ma bàyyi yoro yoro cëm ndax laa la ngi yoro kër eh. gaa ngi nii ngonal la ngi mm-hmm. uh-huh. kee alaaji góor a jógee Espagne samb fi ngonalam fii ci kër gi mm-hmm. bara di ko xalamal kii di xaritam di doomu ndeyam moom moom démb ak barki démb tey di doog ñëw laay ngay sama gan man nag maay seen maay seen jantal booy di andi gan yi ñu andi. bu pikiroo man naan fa waaw ah, moom nag mu sas ma. pikir ma. ndax defe naa ne ku xam Yoro Ndiaye xam ne jamono juñ toll nii. waaw ah mi ngi ci ay mbir. ndax daa woote woote mu rey mhm. te dajal Sorano la 5 décembre. Mhm. te ku engagé Sorano. Mhm. engagé lu rëy. dëgg la kon jot da dalay manqué. ndax boo tëddee nelaw. dëgg bis ba day feey. kon nelawul. Mhm. lekkul naanu. Mhm. ma ne ko yaru jógal mu ne ma ci la bokk. ndeysaan damay jóg dem ngona la ngoog. waaw Yoro nuyul waa senegal Yoro nuyul. waa maa ngi nuyu téléspectateur TFM yëpp. di am vraiment mbégte bu mag a mag nag. wax dëgg yàlla ñëw ci émission bi nga xam ne émission bu am prestige. jërëjëf jërëjëf. am na am na am na contentement lool toog fii tey. Mhm. mbal di profité rek ci occasion bi. di leen félicité. ci xew mu rëy mu ngeen def. xew ma waaw waaw trace ba trace ba mu ngi fay des. ba léegi waaw waaw waaw. Mhm. titre foncier titre foncier jàpp nañu ko Cheikh dafa ne am na ñu ma ñu ñu leen ci xeeboon ma ne ko kon xeeb nañ xal ci mbopp. waaw waaw waaw ñu ngi leen ci delloo njukkal di ñaan yàlla yàlla yokk affaire bi ba mu gën a kawe. dëgg la ci gerte gi waay. saa waaw waaw man Cheikh Cheikh waaw gerte euh, Ndiaye waaw euh, man tey damaa gis Yoro te àndul la guitare waaw te Yoro bu ma ko mosoon a gis dama gis bàyyi na xaritam de mu bokk guitare ana sa xarit bàyyi sa xarit ko de waaw bàyyi ma ko de wax cest à dama am fu ma jëm bu mu fi jógee waaw ah. maanaam ci câblage baak yooyu waaw moo tax xam nga ak jàmb bu mu ah. jàmb ah, dalaa jiitu waaw waaw dëgg la dëgg la la waaye ta laaj mhm. musicien bu fi toog mhm. lan mooy musique maanaam euh, mooy l'art de combiner les les sons. Mhm. xam nga de manière agréable. muy nga def. kàllaama yi kàllaama yi <laughs> waaw. ndax wax. maanaam maanaam laaj bu am importance laa lay laaj. maanaam maanaam. dama xamul nag nan la ñu mun a. caada mooy aar. waaw aar. mais musique nga ma laaj. waaw mooy musique. Mhm. particulièrement. nag ma laaj musique nga ma laaj ci boppam. waaw musique te olof moom nu mu koy. waaw loolu hmm? musique maanaam ci ci sama xam-xam bu gàtt dem mooy maanaam not laa xamul nuñ koy tekkee nag. waaw bu mu ko xamoon. ay bum bum. waaw bum waaw moom koy faral maanaam. maanaam yoon wa ñu koy faram-fàccee ba mën a ànd bokk neex. Mhm. nit ñi mën koo jëriñoo. Mhm. Ah. defe naa loolu mooy mooy musique. muy teg lan moom musique di jëriñ lan. day njëriñam bari na ndax day day day day day day adoucir les mœurs liñ comme niñ koy waxee. Mhm. c'est-à-dire maanaam euh, day day day dalal nit. day faj nit ñi aussi. day faj nit. Ah. waa musique day yeete. musique day jàngale. day bëggal xam nga lu laaj ko ko. ndem si yàlla sa njaga mbay yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana def na marque fii ci réew mi da daan wax naan mm. bu xamlewul mm-hmm. yeetewul diglewul mm-hmm. nekkatu ko ay naxaate la mm-hmm. te ma gis ni musique yi léegi yi ci ëpp kañaate rek la xool la ca poosu nit nga jël ko di way sa maam di way sa baay. wayal la say maam wayal la say baay. tagg la. tagguma la ndax dama la gëm dama lay tagg ndax li sa biir poos buy. bu jeexee dootoo ma woy. ñu gis ni musique gu Sénégalais senegal gu di suufe rek di dem. te yéen ngeen ay ay ay ay waykat. ñu xool nigérien yi xool xool dégg nga maam waa Côte d'Ivoire. Hmm? ba sax léegi yi. bëgg ëpp doole ak sunu bos. ñoom xale. pour lan. fan la erreur bi kañaate gi la. wala bàyyi fa musique war a jaar ngeen teggi ko jaar feneen la. man de leen xam naa ko. kañewul de moom. jeex yow it. sama gànnaaw non mais mais déedéet. bu ma kii nga koy kii kañewul man moo la wax day woy de eh, xarit day woy. tontu sama yëf waay. yow ah wax dëgg yàlla. xam nga daal moom wax ji concerné mën na koo a concerné waaye musicien loolu yëpp sax dafa bokk ci musique dëgg la waaw dafa bokk ci kañaate geek waaw c'est-à-dire woy waaw lu ci nekk dafa am waxuma thème de waa dama ne bakki maami jàmm yi ngeen di bakki maami jàmm ndax bëgg jël seen alal yi laa wax waaw loolu dafa bokk si musique si dafa am xeetu musique saa dire lu ci nekk dañ ko war a teg ci cadre am dire ak fañ ko war a diffuser mhm. xam nga c'est-à-dire dañoo bàyyi maanaam bon euh, la nga xamante ne bi moom lañ daan def ci biir kër yi di ko def ci ngénte takk yi léegi def ko ci comme ak technologie beeg léegi télé yeeg yooyu moderniser ko mhm. ñëpp di ci jot mhm. wax dëgg yàlla am c'est-à-dire dañu toog musique boo gisee loolu gën a fees sax cest à dañu toog ba musique bi dafa am crise xam nga te léegi waaw mhm. il faut que mu am léegi li koy doxal li mun a dimbaleel ces artistes là mooy mécénat bi nit ñi di si jàpp nit nag bu la day jàppale je crois que wax ko lu baax wàññiwul dara waaw waaw kuy xalam di sa jaayul. waaw wax waxul bu baax waa wàññiwul dara quoi. Mhm. mais am am ñoo xamante ne bi ñëpp man man tey jii bu ma bëggoon la bu la bëggoon tàgg xaw ma fu may jaar donc. Mhm. Mhm. xam nga dinaa la mun a wax dinaa la mun a. wax sax mbaax digëb quoi comme ni ñu koy waxee. waaw mun naa mun a wax li ma xam si yow mais munu ma munu ma la tàgg quoi. xam nga. mais am na ci ñoo xamante ne bi aussi dañ leen di citer parce que seen jaloore mooy tax quoi. xam nga. par exemple man su may woy nit dama koy woy parce que dafa def dara loo xamante ne bi su ma ko su ma ko cité nit ñi dinañ xool ci loolu mhm. voilà pour mun ci pour mun ci sukkandiku pour mun ci changer mun a mun a mun a améliorer wu quoi waaw mais est-ce que du am ko am xaalisam mhm. woo leen ne leen xaalis a ngi nii mi dama bëgg ngeen woy ma am na waaw loolu ak ñu koy def ah, waaw am na waaye. waaw mm, loolu moom mënul ñàkk. mënul ñàkk mënul ñàkk. Ah. dëgg la am ñoo xam ne loolu ci seen aada la bokk dafa bokk ci seen cosaan bokk ci. non ban bi ma ko laaj wuyu ko ba léegi. musique gu Sénégal bi ngeen di xoolee. waaw muy muy mu mu juutu rek tawul si giwaaw waaw léegi dafa am dafa am benn. parce que mi nga dafa am dafa am benn foo ñëw sànq da nga ñëw ci ci côté comparaison. waaw maanaam ci ivoirien yeeg. ñekk nigérian yeeg waaw léegi ñun dañu am problème mu marché. waaw c'est-à-dire marché suñu marché dafa tuuti trop trop trop par rapport ak nigérien li ma doon wax tey ji doon naa ko waxtaanee tey ci suba. Mhm. ma ne ñun bu fekkoon tey ji nii. ñun mat nañ comme li Nigériens yi mat ci ay nit. xam mhm. nga suñ matoon cent millions d' habitants. Mhm. américains yi dinañ ñëw fii mbalax mbalax mi. Mhm. di yóg ñun pour gagner suñu marché bi. comprendre na c'est-à-dire problème mu marché lañ am ak problème mu linguistique boo xam dina tax musique bi ñu ñu ñu mun a ñu mun ko exporter bu baax quoi comprendre waaw waaw loolu bokk na ci lu ñu freiné mais aussi Euh, dañu bàyyi lu bëri tamit ci ñi nga xamante ne bii ngànkoon nañ musique bi liggéey fi liggéey bu rafet mm-hmm. xam nga ñu topp voilà donc dañu topp facilité bi mm-hmm. xam nga tamit euh, dañu war a dem ci euh, ku nekk waaw ñu jox ko métier daal c'est-à-dire ñu war a arranger ñu woo ñu arranger musique bi ñu war a composer ñu ñu jox leen ñu composer am ñoo xam te ni baat bu neex lañ yor mënuñoo bind mm-hmm. ñu bindal leen xam nga composer leen ñu ñëw rek way ok mais man fi may ñëw mooy ci li ma dégg li ma dégg. a ànd sama gan ba pare nag du ma ko laaj yéen waaye li ma dégg mooy que ni yaroo. woon na fi commencé musique. doxul. mu dem moodu moodu ji. moodu ba muy dàqante karabe ñeer yeeg. jaay jaayum CD yeeg yooyu. waaw ah xaw ma Italie xaw ma Espagne. Eh, carabinieri moom Italie la. Eh, eh, police Espagne la ñuy wax yow. non carabinieri moom boo ko waxee rek Italie. guardia civil yeeg yooyu daal daal ñuy dàqanteeg ñoom loolu neexutu ko. Mhm. mu dellu soir ñëw. Mhm. ba mu ñëwaatee ci la génn xaritoo boobu. Mhm. ndax xaritoo boobu mooy àndandoo yomb na waaye xarit moo jafe booboo toj dëkk bi nag booboo tax nga xam yaroo. yaroo est-ce que noonu la demee réellement wala wala wala. dama ko dégg rek. waaw demewul noonu nag quoi. ok bon man ñu bëri nag euh, jot jox nañ ma étiquette modu Modou quoi. mais man mosuma Modou Modou. ah waaw. musuma Modou Modou Sénégal nag damay damay fii <laughs> boo waxee. ñëwee nga noppi. a mu ci fi jafe voilà dinaa dinaa di tukki comme comme comme comme ni euh, Sanex di tukkee. nekk ci métier léeg-léeg mu dem mu dem France wala mu dem Belgique noonu ci cadre boobu laa doon tukkee man ba bu may def sama premier album xam nga en fait sama premier album mu ngi tuddoon bëgg a dem. ci la Bari Saxaya nekk quoi. bëgg a dem bokkut ak kii àndandoo boobu laa génne 2004 la génn boobu daali saxaaya waaw ci la ci la ay album bëgg a dem ah, nekk ci la ay morceau bëgg a dem nekk baari saxaayaa sax laa bëgg waaw nga ne tekk baari saxaayaal ko waaw nga diwaat ma baari saxaayaa man nee na nee na oto laay Touba lay dem ne Touba doy nañu doy nañu doy loo nañu ko aji texe Tuuba lay dem mbaari saxaaya waaw xam nga ni kii ñëwal comme nga cim ndox te duñu dugg luy naw jëm kaw otoraay Tuuba lay dem mbaari saxaaya woy boobu yow xam naa way boobu. détecté naa ko kon xam nga. yow xam xam naa bu <laughs> baax kii kii maa ko xam. kii nga de mais xam naa way de. <laughs> léegi bon man bi ma defee bi may def bi may def bi may def loolu. Ah. boobu maa ngi fii di def première parti Youssou Ndour cosaan. ah boobu. voilà période boobu noonu maa ngi fii di jouer. bon en ce moment laa nag dama nekkoon di liggéey fii ci Club Med boobu Club Med bi bi ngi mu ngi ubbi ba léegi. bu Dakar bi di musique di musique comme li tax nit ñu bari xamuñu ma woon. à l'époque comme fa laa doon joué fa doon liggéey dama fa doon joué en temps. Ah. voilà dama cumulé woon di fa liggéey en même temps di fa joué. di fa jox samay spectacle quoi. Mhm. donc su wàccee damay ñibbi bariwul woon lu may génn ci affaire yu bari quoi. Mhm. ba nu ma commencé nag di def ay première partie. ci la voilà léegi bu ma entamé produit boobu nag. peu de temps après ci laa voyagé def quelques mois rek ñëwaat. voyagé waaw ah ah est la ko dama def ay quelques mois rek ñëwaat. léegi nag durant non non non boobu ma boobu commencé naa nekk sama projet def sama album. Mm-hmm. ma voyagé ma voyagé après nag laa chaque fois bu ma amee occasion dama doon damay damay dem tukki ñëwaat mhm. xam nga comme nit ñi xamuñu ma woon nag dañoo gis rek ma jékki-jékki tëll mhm. voilà ñu naan waa ji Modou Modou laa waa ji jóge Suisse ak nekk dégg naa xam bon voilà jox ma étiquette boobu voilà donc man it aussi waxuma ci kenn dara ma toog jàpp sama ñàmbur bu ñu ma ci laajul aussi du ma wax dara hmm. waa léegi guitare lu hmm. la boole guitare loo ko ko ko doon suivre la. wala don bu ñëw ci yow la wala da nga doon fooy guitare ba ngay xale. guitare man toq si ngalam laa doon joué avant ma si ngalam nga. toq si ngalam laa doon dama doon maa ko dàq toq si ngalam foofu. ah waaw toq si ngalam. foo jàngee toq si ngalam. si ngalam. Hmm. dafa amoon benn benn. yow cosaanu fan nga. ba Mbacke Mbacke Bawol. kii mën na toq si ngalam. ah waaw Mbacke Bawol ku ko ku ko focc. Hmm. ku focc Mbacke Bawol Mm. non mais moo tax kajoor gi ku fa kocc rek su ma damay dégg ngeen di taaxuraan quoi. mën nga taaxuraan damay dégg non non ah mënuma ko sax mais mu nekkee booy ah. doon njool ñang da daan ñëw foofu. ñaaw caw ñool ñang. <laughs> waaw ñool ñang da daan ñëw foofu. ñaaw loo doon xool caw ba sa fas waree. waaw ñaaw loo doon. ah daan ah. ñëw foofu waaw. Ah. lamb yaa tey mm. daagul fañu la noonu. moo bu xale laa quoi dama ko mais dama leen doon seetaan nii quoi paa yi waaw di sol ay caay ngande. di dem dem yu rëy. ah njaay nii. loolu doon toog loolu dama ko bëgg moom boole waale benn laaj nga ko guitare gi donc mu ngi lay expliquer que tukusum bi la mais damay seetlu aussi xaw ma ndax seetlu ngeen ko ou pas am toujours day am balafon fan la ko toppee fond musical bi ma ko boole waale non en fait balafon moom daf ma daf ma daf ma neex man comme nu ma xalam aussi neexee man Baro mii moo joué sama album album bu ma mos a joué. Baro moo ci def xalam xalam ah, mais xanaa xamoo simil la. Ah, day simil suma album dégg naa bu mag ga muy tabax. c'est un très grand musicien. donc man ma bëgg souvent di def ay di jouer ak instrument di boole. traditionnel traditionel ak moderne bi parce que munu ma mënoo dem di jaay suñu musique en tant que africain. di ko jaayee ci musique ci instrument yu bees mhm. instrument wu tubaab mhm. donc man j'aime bien wone facette bu nga xamante ne bii moom moom lañ am et puis man dama dama bëgg contribuer ci ci li nga xam ne mooy def promotion instrument traditionnel ah. parce que bu njëkk da nga gis da nga gis ay paar ak ñu daan joué xalam. léegi il faut boo jëlee tey ji ne instrument yu bees yu yu yu traditionnel yi nga mm. dugal ko ci suñu musique bi mm. ñi koy joué dinañ am ay ay idole ay ay ay xale ay xale yu leen fan mm. ñu nekk ay ñoo ñooñu mun ko reprendre di topp ci instrument bi sinon après bu ñu ko délaissé ñun ñëpp instrument bi day dem ba mujj day réer petit à petit ay mag rek ñoo di nga naan ataaya waaw waaw dégg nga way benn way fan jamono yi mhm. way boo xam ni way bu am solo la neewuma moo ëpp solo ci way yi nga mës a ëppoon na ci mhm. man gëm naa ni moo ci ëpp doole. wayal wala wayal waxal. loo wax ci wayal wayal loo ci wax. wayal ak waxal la wayal dama ne ki ñàkk ba xelam dem ci dugg ci lu baaxul yaa koy wayal xam nga soxna si xolam yàqu ba dugg ci lu baaxul. ba ba xelam yàqu ci mbëggeel yaa koy wayal yaa koy wayal xam nga ki ñu tëj xañ ko liberté te tooñ ko yaa koy wayal cest à dama siy wax rek juste ne euh, définir ci rôle porteur de voix yéen porteur de voix ngeen waaw porteur de voix lañ la voix des sans voix voilà bismillah xam dama ci rek définir li nga xamante ne bii parce que ñun lu ñu doon tey arrêteel xalam gi te naan waaye ku mun damaa fay sama xaalis même bu. <laughs> waaye ku mu xalam. tey nit ku ñuul ku mu ëpp doole waaw yoroo ma may la ci gerte gi. waaw nga jëmul waaw nga jëmul waaw bawal la. waaw waaw arène foo dëkk ci bawal. man Mbacke bawal laa. Mbacke bawal bu lax teel aaneen. noo def ak Mbacke Kajoor. Mbacke Kajoor Mbacke Kajoor feneen la quoi Mbacke Kajoor côté Kajoor la quoi. waaw yow Mbacke bawal la. Mbacke bawal waaw waaw dëgg la. waaw waaw dëgg la. waaw waaw dëgg Mbacke bawal ak Mbacke Kajoor Ah. Mbacke gi Mbacke gi lañ bokk. waaw Mbacke gi. ayca <laughs> ah. ah kon woyal bi loolu la ci waaw woyal bi dama si doon ala joora ci ale ba ba ma ayca <laughs> non ah, ko damay bañ ko fot ni moo doon fot xam nga xam nga doon da doon da nga doon sànq ŋàññi waaw façon wayin bi ñuy way léegi quoi waaw man bu ma ñëwee ci waxuma waxuma yéen ñëpp xam naa bu baax waaw xam naa personnalisé ko non li xam nga yow ba ma tourné ci télé benn bis taal ah Canal Plus Afrique. waaw gis ko fa moom mi ñu invité ko fa. Mhm. invité fa Bombardier. invité fa waa waa waa waa euh, rappeurs yi. sama xarit ya waa Daara J famille. Mhm. da ngay bëgg. Mhm. parce que boobu ngan di musicien ñooy toog foofu. kon ñun bu ñu amee sunu ay doomu réew. ñu ràññee leen ci musique bu baax ba ñu toog foofu. dalay yokk honneur daal mhm. man yooyu laa gëm comme moom yi muy def xam nga ñii xam ne ñii musique bi muy bay musique bi muy def mën na parcourir le monde mhm. super ñun bu ñuy tiit ci Youssou Ndour bàyyi musique bu bàyyee xam genre googu la ñuy tiit bàyyi ma koy jëli mhm. bàyyi laa laa ji wax naan qui dira l'histoire mhm. qui la dira aux générations futures mhm. waaye kan mooy jël relève ba mhm. léegi nag bu ñu amee ñu mel nii ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne mënuma tudd seen tuut ci plateau bi suñu xel dina dal mais bu ñuy gis yenn musique yi waay boo ko tegee ñenn ji laat lii ndax musique la wala ay potondaa yu ñuy tëgg la tamit dalay rusloo te loolu am na Sénégal ñooñu defe ni ñoo fi ci ne waaw wayal bi mu wax Samb waaw yaa ngi woon ci wayal bi wayal moom mais dama dégg ay Youssou Ndour tudd Hmm, en fait ñun dañ leen di delloo njukkal parce que ñun créé wuñ dara. waaw ñoom lu ñu tracé ba pare. Euh, la ñëw topp ci jéem ci indi suñ touche personnel parce que nit ku nekk ak génération am nag quoi ñun am nañu ay influence yoo xamante ne bii peut-être am nañ ko am nañ tuuti ubbeeku mhm. donc dañuy ñëw rek dolli ci li nga xamante ne ñoom teg nañ ko fi ba pare jéem a fexe ba pousse ko nag mu dem ci kanam quoi. Mm. bon ñun tànk yooyu lañ ciy dox daal. Mm-hmm. bon euh, comme ñoom nag ñoo tax ba ñu ñemee ñëw dugg si métier bi. Mm-hmm. xam nga ñoo assainir milieu bi parce que bu njëkk euh, kenn bëggul woon def musique. Mm-hmm. ñoom grand Youssou ay ñoom. Ismaël Lo bi ñëwee yóbbu nañ ko benn niveau ak Baaba Maal ay Omar Pène ak Thione Seck yëpp ñoom ñëpp. Ah, bay nañ ci waar woo xam te ne bi ñu fi di tege. Thione Seck boobu sama way. Mhm. waaw waaw amul fu ne lañ koy teg. lan la way ci UNESCO bi. Hmm? Hmm? une lierre des cœurs ma la nga. waaw waaw noonu naa ko ah, ne. tu es la xomba soleil tu es la la ah, mais Samb. Oh, ah, super Sénégal. Hmm, noo gisee ñoom ndax ak ak musique acoustique bi. parce que Ismaël Lo. gars yi daan nañ ko déglu bëggoon nañ ko. mais bu Ismaël Lo demee. ñaar laa dégg muy Yoro. Mm. certes ak Pape et Cheikh. waaw ñu ñëw imposer. seen eh, ak Yoro les frères Guissé. les frères Guissé voilà après Ismaël dégg nañ les frères Guissé. man Sénégalais ñi ngi koy gën bëgg wala da nga sentir. ñooñu ñooñu ñooy sumay grand. ay ay Ismaël ay ay frères Guissé yi ak ñoom ñoom Pape et Cheikh. Mm-hmm. avant Ismaël Lo y avait. y avait Seydina Insa Wade. Mhm. Seydina Insa Wade xaw ma Seydina Insa mooy ki way mag du caaxaan borom. bi jaaw du ñoom ñi ñooy précurseur wu. mooy boobu war nga ko wayaat parce que bari si dëkk bi. <laughs> borom bi jaaw yi fo. soxnaal gi rek. sama dégg nga mooy ma sas. <laughs> bon ñooñu ñooy précurseur lu ñu def nii léegi après ñun aussi bi mooy li ma la wax rek ñun dañuy ñëw indi ci beneen njàngat. Mhm. teg ci beneen pas parce que tamit euh, mbalax suñu musique la quoi. Mhm. xam nga. ñun yàgg nañ def musique acoustique du juillet ak trois personnes les gens dañuy romb ne la booy waaw lii moom vraie musique la apprécier rek après bu ñu paree ñoom ngay soirée salaam quoi. la de <laughs> dañuy <laughs> hmm? <laughs> léegi donc ñun bu ñu mënee allier ñaar yëpp. Mhm. cest nekk ci cest à pour atteindre grand public bi c'est-à-dire comme amuñu occasion di exprimer wu ci rajo yi souvent rajo yi benn musique bi la ñuy ëpp lu ñu teg mooy bu tar bi waaw léegi nag ñun dañ leen di waaw dañ leen waaw léegi nag ñun dañ leen fekk si ci langage boobu ba ñu wuy si ñu woon leen leneen comprendre cest à boo gisee man pratiquement su may vidéo ay vidéo mbalax laay def mhm. mais boo ubbee album bi j'ai fait un album de quatorze titres mhm. ñetti mbalax moo ci nekk mhm. te t'as l'impression comme album bi mbalax la c'est-à-dire li ma lay woon ba mu neex la boo ñëwee ma ne la toogal tiik xaar ma ma la bëgg woon ba nga wan bu ma la ko wanee pare nag doog laa tëggal sa mbalax nga dem tëddi ndeysaan xam naa ko def mën naa ko def mais mëneewu ma ko comme ni ko gars yi mëne nit ku nekk da ngay xam sa sa ay limite comprendre xam nga hmm. Hmm. nit ku nekk du sama fort quoi mais je suis un Sénégal je suis un Sénégalais man je fais de la musique en général damay jouer musique daal musique lan nga gën a spécialisé wu ma world music daal musique rek waaw world music musique xam nga ne daal mbalax daal moom du sa fort waaw mais dinaa ci yëngu daal mën naa ci mën naa ci dem de mën naa ci dem lu neex sax par fort nga dem ci sax lu bari waaw damay ñëw ci dinaa mi ngi ci musique bi ci musique bi ak clip yi waaw parce que yoro mënoo way kaas bi hmm. waaw clip clip ñu wane gerte gi dëgg la donc exe loolu nit ñaa ngi koy bàyyi xel ak monteur ba déet déet boo wax de bala nga xam monteur réalisation film ba la wax yoro way xarit xam moom tey woy na xarit indi xaw ma mais xarit bi wane na ko waaw xarit bi am na fu nekkee xale jub na après mu andi am di mi ñoo defe naa ak ku caala woon waaw buñ doon rédaction la dañ naan dañoo hors sujet waaw waaw loolu bari na aussi ci si si musique mais parfois am na ci ñoo xamante ne bi ay réalisateurs yoo xam ne ñoo koy def exprès c'est juste parfois dañuy jouer ci effets spéciaux yi ñu utiliser hmm. par exemple jéem a jouer ci image yi mun nañ la mën nañ la mënuñ la théâtral exactement li li li woy bi di wax Sadji am ñoo xamante ne bii nga woy pot bi ñu wane pot bi nga woy gaz bi ñu wane gaz bi benn instant day xaw a kii quoi. waaw a booyee. voilà hmm. donc am ñoo xamante ne bii dañuy jéem a dañuy jéem a seen bopp. Hmm. réalisateur yi parfois dañuy wane ah. seen bopp ci qualité image yi. Hmm. joué ci effet yi joué ci yenn affaires yi parfois c'est fait exprès. mais ci xeetu ça dépend rek bu fekkee. lépp mu ngi dépendre ci contenu wu texte bi ngay way c'est-à-dire ak public bi nga ko destiné mm-hmm. mais sa clip bi gis naa ñu seetu seetu boobu lan la signifié si clip bi non gis nga loolu tamit loolu xarala loolu ay xarala la rek cest à seetu nag loolu du seetu mooy li ma la wax loolu genre incruste la contre non non contreplaqué la bu ñu bu nekk vert léegi incrusté mooy comme boo bu ñu la filmé ci fond vert rek. Mhm. Ah, alaaji mooy mooy mooy sunu bos bii nekk ci kër gi tudd. Euh, tudd fës fës. waaw waaw xam nga contreplaqué lañ lay daggaat rek. waaye waaw waaw donc mooy li ma lay wax rek saa à dire loolu mooy nandite fës fës mooy booy amet ñaare. moo koy def <laughs> ah. booy amet moo koy def. waaw booy amet ñaare waaw day takk jabar mais loolu dañ lay c'est-à-dire ñu kii def réalisation bi moom mooy. waaw waaw mm. <laughs> waaw nga ne ma ne kii def ré <laughs> def réalisation bi. moom moo si wone ay ay xarañam. ay wone ci ay ay waaw parce que loolu tamit dafay rafet dafay rafet ci bët day rafet ci gis-gis. waaw parce que loolu tamit day bokk ci liy jaay liggéeyu kii ki koy def. mais daal du ca dara. non non du ca dara. waaw sa mais man c'est-à-dire mais ça euh, symbolise quelque chose parce que. non lan lay symboliser kay <laughs> ah, la ñuy rafet daal rek la rek. ah rafet rek. <laughs> waaw rafet waaw waaw tey rafet lay. symboliser rek nga création moom. lu xam nga xam nga lu ñuy seetaan tamit. Ah. lu lu luy luy duuful bët luy rafetal. gis-gis lu ñu naan nous sommes des créatures créées am solo quoi. Ah. des créé foo doon ñëw ci moom. fi ma doon ñëw mooy dama koy gis mu def acoustique. waaw mi ngi def aussi mbalax. waaw mais liggéey na ak baro ci xalam donc su ma juumulee day def aussi euh, traditionnel. voilà. bon en fait. pas baro daal ngeen si liggéey ngeen ñaar man damaa bëggoon ñu xool. pas pas traditionnel. c'est-à-dire man damay ñëw déggoo ma damay. non baro nag yow bu fekkee da ngaa bëgg ñu jox la kàddu gi. Ah, demande la parole ñu bàyyi la parce que moom moo mu dàbbali ko parce que xam na waaw moo fi ñëw pour la première fois Sénégal écouté Baro waaw non xamante quoi on a travaillé ah. mais may lañu dara bokk si xamante bi ah, sa xarit la sama xarit moom de nit mosu ba mu ni sama xarit non sama xarit la nañu may ah kon def leen dara non tey nag Baro wax na <laughs> waaw tey Baro déglu ko déglu ko sans damay dem këram toog foofu waxtaan lekk naan naan ataay sans sans liggéey sans dara. te loolu seqoo ko benn musicien. sequma ko benn musicien. ah kon yore la moom. mi ngi baax kon ci xaritoo boobu ñu xool. lu dëggu la. waaw lu xool daal ci xaritoo bi. waaw yore dem leen fenn. ñu xool xool naa xool ne yow mi baro ku baax nga li ci xol bi mooy feeñ ca kanam ne xool naa xoole waaw waaw li ci xol bi mooy feeñ ca kanam. loo wax ci man. ci yow la ne baro. ma. baro ci ngonal. Eh. di leen béggee di leen béggal ah, waaw eh, mhm. may bég ci yéen alaaji Saneex saamu ah, baax la damay futti ku de eh, wax may ma mu profito <laughs> may ko sama soxna ndax dala sopp loole waaw may naa la sama jëf taxul ko <laughs> xool naa sama jëmm ci sa soxna. yaa na sa ba sox ma eh, def def ma cadeau de Noël. non mani. paquet ma yow sox ma cadeau de Noël. sa soxna. ndaxte xol day gisee. ndeysaan. Ah. ni nga ma bëggee. Ah. lu ko raw laa la bëggee. Faraano ñun ñoo fay toj. sama ah, waay nga. Faraano dinañ ci ñëw ah. dégg nga xol day gisee. te waay ni xol day gisee. baro ni nga ma bëggee. nu ko raw laa la bëggee. waaw yow de waaw. neex na. mais sama waa ji. sama waa ji. jéem a na woy. Ah. non xam nga. voilà pourtant pourtant man man pourtant man. xam nga kat noo koy xamee. ah dem nga bettu ko. waaw kay sànni ko micro. nam mhm. si yàlla nongolo la mu. am na ñoo xam ne bu doon leen la nan la. parce que yoo xam laal dañ laal. daal la daal ak ngoog rek. neexoon du neexal de. ah Sénégal neexoon du neexal de. waaw neexoon du neexal de loo fi def ñu jéggal la ko. <laughs> waaw Sénégal. kon donc. Euh, lu mag. waaw mhm. lu rëy. Mhm. woowaa yëpp. nga ne dix ans ngay fête. Mhm. fukki at. waaw. fukki atam ci musique. waaw donc waaw loolu waaw waaw waaw. waaw na fukki at ci musique quand ah. mais dix ans de présence sur scène depuis ma def sama premier album ba léegi. mooy mooy Masaya. 2004. Hmm. laa génne premier album. Hmm. ñu ngi ci muy dix ans. yow da nga ànd sax si dix ans yi. Hmm. waaw kon jeex na. ñoo ànd mais mais est ce que nangu na naan moom bële moo toj Sénégal. ban xarit bi xarit ah. ma dama naan. dama naan baari saxaay ah. mais mais xarit bu nekkee fële gën a mais xarit ko Sénégal yëpp xamee ah. waaw ci lañ mën a le grand public découvrir rek. waaw waaw xarit moom moo tax. waaw bëri moom ca kaw xarit boobu moo tax ma ni ko club xarit. xarit club ana xarit club. xarit club waaw ñoom ñi ngi ñi ngi ci waajaay bi. waaw ñoom ñëpp ñi ngi ci waajaay bi ak ñoom madame Diagne. ñoom waaw ak ñoom Madeleine. waaw waaw ñoom. parce que ñoom Ndeye Fatou Sakho ñoom Ndongo parce que ñoom club xarit. Mhm. àndoon naa ak ñoom benn bis ñoom dañuy wër ci prison yi. ci ci xale yi nga xam ne dégg nga maam dañoo néew doole. ci mm. daara yeeg yooyu di leen yóbbul ay denrées di leen yóbbul ay médicaments di leen dimbali ji. c'est bien moom mii. ci club xarit la bokk. léegi club xarit moo tax nga way xarit wala xarit daf la club daf la fekk ak xarit. non xarit moo indi club xarit xarit club. da nga ko way ñu inspiré wu ci def la lool. non en fait la base xarit club xarit club suma fans club xarit club c'est-à-dire dañu dañuy ñëw bi ma bi xarit bi génnee après ñoom ñëpp dañ doon retrouver wu ci soir yi dañ doon ñëw di ma suivre di ñëw di xama mhm. léegi ñoom ñu bëgg nan nan lañ may jàppale maanaam nekk ñetteelu loxo Yoro ndeysaan fi nga xam ne mënuma fa egg mhm. ñu bëgg nan la ñu may organiser woo pour di ma jàpp loxo Yoro nañ ko nañ ko écho mhm. kan mooy sa ñaareelu loxo hmm? man ñaari loxo laa yoo waaw maa ngi koy utiliser waaw troisième waaw ñu ñaari loxo nga am ci gis-gis waaw mais li ngay liggéey benn loxo nga ci muy yow. Ah. sa ñaareelu loxo kan la. Ah, mooy fan si. loxo bi. mooy xarit club. Hmm? soxna soxna si la. Ah, yàlla amul ndégg boo di am nga <laughs> problème de. am nga <laughs> boo demee di nga génn ah. yow yoroo. tu vas passer la boo joué jéem a nga foofu. non non Sam dox kan mooy sa ñaareelu loxo. sa ñaareelu mooy soxna yi. waaw soxna yi soxna yi. <laughs> couple ah, ah yow boo yaa ngi waaj a takk jabar kan yow bi maaren kan dégg nga ah, bañ na de alaaji benn la yem de waaw yow ay ma saraxe ah waaw yow yow fa na biti waaw yow yaro àll ba laay fa yaro euh, club xarit nga def ni fi toll toll nañu ci ñaata maam ñaata nañ bari nañ ah bari nañ c'est que dafa am ñoo xam mën nañu miin non xarit club bon matuñ mille moom. Ah, mais bari nañ daal man ci xayma daal bari nañ cest à am na ñoo xam te ñooy gën a actif am na ñoo xam te ne bu ñu xewlee rek. Mhm. lu ñu xewlee rek la ñuy ñëw suñu soxlaa ci ay joxe ay affaire mm. am ñoo xam te ne bu ñu amul jot aussi dañuy yónnee. seen seen seen participation ñu dem def action bu ñu bëgg a parce que dafa action yooyu ah. laa bëggoon nga waxtaan ak ñu fan la toll waaw ñu ngi ci en chaque année dinañ fexe au moins def réaliser dara xam nga mm. mus nañ dem dem nañ fi Mbàkke mm. may may waa may waa lycée bi mm. ay livres mm-hmm. ak ay matériel sportif mm-hmm. euh, ak ak ak euh, kii may ay moustiquaires imprégné ak affaire yooyu quoi mais yemul Dakar rek non non non non non na Sénégal non waragul Sénégal quoi demul parce que en fait créé guñu ay cellules yu wër mais fu nekk am na fa ay membre daal yoo xamante ne bi dañuy bind ne dañu bëgg bokk ci xarit club ñu jox leen contact gu ndongo président bi mhm. et puis ñu adhéré quoi xam nga lu tax lu tax euh, club xarit par exemple loo bëgg muy yaatu. di nga organiser ay soirées de gala. di nga organiser ay manifestations xam ne di nga ko fësal ci télé bi. pourquoi club xarit boobu ba léegi rek nekk lu lu lu benn. bloc bu ndaw quoi dafa bruit nag amul bruit parce que club xarit aussi ñu ko xam bu ma jëloon micro taxaw fii ci tali almadini bu ma laajee. saa personne ay intellectuel lañ xanaa. bopp bopp yu mag. naka fa ne nag. ay intellectuel boo may tuul boo may tuul ñeenti ya ñeenti ya du ñu xam kërëb xarit. bëggoon ko ci xam lu tax ma wax waaw gis nga loo gis. waaw damaa defi ne loolu ci moom la. waaw xam lu tax. Hmm. dama ko jàppee Arsenal. waaw Arsène Wenger. Hmm. Euh, kiyam moom nu mu mel. waaye waaye fukk lan la tey dama ciy ñëw rek dama ciy ñëw defal ndànk rek exemple la rek Arsène Wenger doo wax doo jël la exemple la rek. waaw leneen. Mm-hmm. nu mu mel personnalité am. loolu la imposé Arsenal. Mm-hmm. Arsenal dañuy dañ lay mëne ba ba ba arrêt de jeu. Mm-hmm. nga fekk leen fa. parce que dafa bari jàmm. Laurent Blanc même chose ci Paris Saint-Germain. Yoro mii tamit. dafa dafa dal de trop. ci musicien boobu man pour man. parce que man pour man musicien da ngay war a def yenn saa yi def bruit. def band def band waaw def yi fi band yenn saa yi. Ah, génn place de l'Obélisque. may fay affaire xam nga. bu non non en du loolu sax cest à am nañ nit ñi tamit c'est-à-dire nit ñi aussi mënoo wëñaar seen loxo di leen def looy man mënuma lu may hmm. bon man côté bi ma féete hmm. yi ñoom mettre nekk ci seen disponibilité fu ma iri ne ma kaa ñu dem ñu def lii ma ñëw taxaw ci su ma ci amee lu ma ci mun a apporter. parce que ñoom aussi ñoom ñoo yor décision bi ñoom ñooy ñoom ñoo vraiment kaa ñu jàppale la ñu wax. Mm-hmm. comprendre na mm-hmm. suñ mu fekkee dañuy ñëw pour di ma jàppale aw ma lu ma leen di imposer. Mm-hmm. parfois nag dinaa leen proposer. dinaa leen proposer ci proposition bi laa mën a yem. comprendre léegi nag am na initiative yoo xamante ne bi ñoom ñoo mën a organiser wu jël ko. xam nga man ma fekk si leen ci. ren proposé naa leen fi ñu def fi soirée de gala. xam euh, nga yi mu jëwuñ ko def finalement. mais de toute façon euh, ñoom ñu ngi koy dégg. ñu ngi koy dégg ñu ngi koy dégg euh, je crois que dinañ ci gën a mën a bàyyi xel. ah oui parce que aussi ki ngay jàppale da koy jàppale à ce que mu jàppale bi mu koy yëg. Mhm. parce que bu fekkee at ba at nga dajale ay médicaments dajale ay cahiers dajale sa baax na. Mhm. dugg ci prison yi maye ko baax na. Mhm. mais aussi. que ki ngay jàppaleel moom musicien la mm-hmm. dafa war a parcourir le monde mm-hmm. dañ ko war a xam ay affaire am dafa war a large dafa war a mm-hmm. ubbeeku dafa war a traverser tout le ah, a quatorze heure bi dafa waroon a fekk Club Khalid nekk ci quatorze régions yëpp mais ba muy A+ bi nga occasion la woon bon en fait dama demoon dama waroon dem ci euh, dama waroon dem ci benn festival bu tudd francophonie métissé bi dégg nga waaw léegi festival bi bu ñu buñ buñ ma buñ buñ bu ñu yëgee ne damay ñëw foofu mhm. xam nga bu ñu ko yëgee ci dañ souvent dañuy envoyé benn mailing mhm. par rapport ak seen réseau yeeg yooyu mhm. ñoom mi ñu xamee na ma war a ñëw France après ñu contacté ma na ma pourquoi pas nga ñëw def ak ñun bi comme da ngay nekk Paris bon hmm. ci occasion boobu lañ ma invité waale woon ok le 5 waaw kay wero loo nar wala ndax da ngay def comme la ñeneen ñi doon def ñëw rek way ñoom xarit ak ñoom bi morso sa neex beeg yooyu dem mhm. wala am na ay surprise ci am waaw dina bëri dina bëri surprise nag man de ci sama yéene mhm. wax dëgg yàlla boo wooyee nit ñi bañ ñëw war nga leen a won war nga leen a dégtal mhm. waaw donc bëgg naa te comme du may faral di woote su ma wootee ba nit ñi ñëw nag war naa leen woon won incha allah ñun dañ ñëw sax ma leen décevoir aussi dinaa def sama kéemtalaay kattan ba lu ñu fay gis bu soobee yàlla dina leen neex trop. no sa yëf sax dina dina réussir incha allah xam mhm. moom ku am jàmm la. bu mhm. baax la. Mhm. nitu jàmm la moom nit ku dal la. nit koo xam ne la gaawul a perturbé wu. man euh, jege naa ko lool ben moment bu bëri yoo xam ne dañ daan bokk ay prestations yu bëri bëri bëri yoo xam ni dañu toog ay deux heures de temps une heure de temps waxtaan. ak artiste bu ñu toog di waxtaan ku ne après di nga xam sa jikko morom voilà très bien moom nit ku dal la nit ku am yar la macha allah nit ku am teggin la ci ci wàllu bi muy liggéey loolu nag yàlla na nekk réussite bu bu weesu sa njot ah bu weesu sa njot club xarit aussi nañ ci jóg ay jigéen lañu mhm. jigéen ñi ñoo mën a drainer du monde mhm. Mhm. ñoom ñoo mën a jóg taal seen oto yi envoyé email yi jël affaire taxaw ci ba bu jour ba ñu def ay niroole taxaw yir gan yi wan kii taxaw nañ taxaw nañu. te Samb mën nga jënd 100 billets jox ko ñoo xam ne du ñu dem. loolu erreur nag da ngay jënd 100 billets may ko ñoo xamante ni dañuy dem feesal saal ba. Mhm. bu ñu way di saal bi fees. gis nga ñun euh, suñu grand théâtre par exemple. Mhm. dem ci kilifa benn kilifa gu mag. Mhm. mu jënd 500 billets. dëgg la mais kooku par exemple day am yu nekk ci boppam ba nga xam ne bu jëndee 500 billets day rot ci tiwaara ko ci. du ko maye. yow jaay nga ni salle bi fees na nga ñëw jour ba rek jël 500 places yoo xam ne kenn toogu ci. parce que kooku moo ko jënd sànni ko ci tiroiram. wala ah. jënd ko sànni ko ci coffre otoom. il faut ñoom ñu def porte à porte. bu amee ku jënd 500 billets nañ ñu ko. est que doo ñu joxaat 500. ñu maye ko ñu maye ko. parce que am xaalis bi baax na mais salle bi fees moo lu am solo la ci. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que loolu mooy indi leneen ëllëg. nit ñi ji saal bi fekk. mais mm. am na luy am Sénégal. waaw euh, xëy na mën na am lu mu yàq. waaw parce que nit kuy joué du ñu xool musique ba mu joué. waaw du ñu bi mais li ñuy mooy. Samba fees na. voilà par exemple suñu grand bi bien que bi fees nit ñi ñëw nañ mais bi ñu woon doomu aadama yi. Mm. waaw laa loolu bëgg naa tamit nit ñi wax ko. waaw kay comprendre mm. fees na. feesul parce que mën na bañ a fees nga def. parce que grand théâtre moo leen la mais mooy 1800 personnes la. waaw léegi mooy la ma waxoon rek. man la may wane bu fekkee soleil dafa amul amul 1800 fans. waaw mhm. nañ bàyyi théâtre bi yoro am na 1800 fans. bu baax ah. yoro. Mhm. mën na feetal grand théâtre. 10 ans am na 1800 fans yu mhm. c'est ça. man man déjà dit chaque fois bu ñu bu ñu oh. soirée bi neex na. mooy mooy soirée ba fees na. bëri na nit xam nga donc du ñu bàyyi xel souvent ci qualité de spectacle ba fa am. xam nga mhm. c'est très important. Uh-huh. mais li ci am solo rek mooy c'est-à-dire il faut pas que ñu dugg ñun ñëpp ci ci ci ci ci délire boobu quoi. Mhm. délire par exemple jël ay grand théâtre di ko def défi. dëgg la xam nga il faut pas que ñu dugg man bëgguma dugg man depuis ma jël sax Sorano chaque instant dañ may bind naan ma lu tax jëloo grand théâtre xam nga chaque chose à son dafa am dafa am moment boo ko war a mm-hmm. def mm-hmm. ak moment boo ko warul def xam nga ñun ñëpp mun nañ feesal grand théâtre fii ku fi def dara am fi ay nit mm-hmm. am nga ay am di jàmm yu feesal grand théâtre mais ci contexte ba nga koy defee la ak communication ba nga cay def compétition voilà donc man je trouve que booy def benn affaire def ko même bu fa trois personnes nekkee tu le mm-hmm. fais de telle sorte que trois personnes yooyu bu ñëwee dinañ xam ne dinañ xam ne mm-hmm. ñàkk fees bi du du ñàkk mën mm-hmm. comprendre loolu moo ci am solo defal li nga bëgg a def xam nga l'essentiel defal fi jaaral fi nga war a jaar yëgleel fi nga war a yëgle mais li si des nag moom yàlla moo ko yor yoroo ah. gerte yëpp noo nduroo du dëgg maanaam bu ma waxee loolu mooy yàgg musicien yëpp benn ngeen ay xarit ngeen waaye defe naa ne ñaari gerte yu bokk xool yi ñoo gën a mburu kan nga ma mën a wax ci musicien Sénégal nga xam ni kii moom sama xarit la acoustique lay def de kooku xam man suma xarit man Ablaye Mbaye suma xarit oh, Ablaye Mbaye Ablaye Mbaye Ablaye Mbaye sama pays Ablaye Mbaye sama gaañan la sama gaañan la nit la boo xam te ni man ak moom mhm. du ma presque du ma joué fu mu ma joué fu mu ñëwul fu mu ñëwul chaque jour. kon moom dina am partition bu boo xam ne moom. si dañu bokk duo man ak moom benn morceau confiance. waaw confiance am nañ benn morceau te am na beneen morceau boo xam ne ni day ñëw du ci en fait dafa dem ba mais presque dafa bokk ci sama spectacle quoi Ablaye xarit la moom. sama xarit la nit xam nga mhm. Ablaye en fait dafay bu may bu may bu déggee ma def woy bu bees sax danaan bul dugal voix yi te ñëw ma. ndeysaan. day ñëw ne ma booy bala nga dugal il faut ma ñëw il faut fii nga way dama bëgg nga waye nii. booy non non terme ay terme ay terme ay terme la yu ñuy utiliser man ah, moom Baye Mbaye looy jaxase ñaari ànd ah. ñaari ànd ay at nga bëgg nga bëgg yëkkati xolu jàmbur wala ah, bu ko defee bu demee tabla Mbaye mu ne ko booy mu ko mu ko moo xati booy ah so kebe kebe xam nga sama copain la moom kebe maa ko mag mais mais moom booy la may wax sax alors def ku baax dégg mais n'empêche que ñëpp mais n'empêche que ñëpp il faut que soit calme am nañ jàmm et puis voilà quoi le courant passe man franchement aw ma aw ma yaa Pape et Cheikh nan ngeen def non ñooñu samay mag lañ samay grand lañ. super waaw léegi dafa am laaj man Pape Cheikh dama doon def seen première partie samay grand lañ ah. laaj boo daan laaj. waaw ni ko dañ koy jëlal juróomi nit. waaw ni ko par exemple waaw Youssou a ngi nii Youssou Ndour looy jël ci moom looy jël ci moom. benn waaw comme Cheikh àggaleel boobu Youssou jël nangoo liggéeyam ak fullaam ak faydaam. waaw Cheikh àggaleel beneen. waaw ñu ne la Omar looy jël ci moom Omar Pène dafa dafa dafa nit la bu bu yaatu nit bu démocrate mhm. Baaba Maal a ngi nii looy jël ci moom Baaba Maal ku ku laabiir la ku yéwén Thione Seck looy jël ci moom Thione Seck ku dëggu booy ku ku dëggu waaw nit day dëggu ci booy yi ma ñëw léegi bu la woon yow Pape Diouf a ngi nii lan ngay jël ci moom Pape Diouf moom it ku baax la ku baax la ku bëgg nit dafa en fait dafa buy waxee yow sax day wax day wax rek bu la gisee day wax rek quoi mhm. c'est quelqu'un qui voilà day dafa bëgg nit quoi Wally Seck ngi nii lan ngay jël ci moom Wally Seck bu tabe te yéwén moom it mhm. kon nag wootal ñu xool la cinq waaw man woo naa xaar mbay ma jaaga looy jël ci moom xaar mbay ma <laughs> xaar ah, mbay du yaa xaar ah. mbay ndaanaan a ngoog ah. ndaanaan ndaanaan alaaji keroog toog nga. bàyyi maa saraxe. Eh. ñu naan reporter maam nga naan Ahmed Basir Kounta. yaa ko fi wax nag alaaj moom yaa ko fi wax moom. yaa ko fi wax waaye yéen it keroog yi taxaw nga ne fi ah, armère yi nekk euh, VDN bi ay musulman chrétien yee ko bokk. du mix. du mix mix Joal la am ndeke. enquête daa ah, leen non non amul foofu. juum nga Dakar am na mix ma ne amul. Joal la am enquête. ah yow léegi damay wax wax ngay wër ci dëkk yi dañoo ah, enquête dañ la enquête bon waaw léegi xam nga lu may def. waaw léegi léegi man sama émission bopp laay def. ngor man génn naa. waaw léegi Touba Gaz. yow nag balaa nga wax léegi waaw ah, léegi ci Touba Gaz. Ah, demal rek. yaa ah, xam nga kon enquête daaneel na. ma nga ni certificat ISO bi mu am ñëpp ko xam. waaw ak lan xam nga sa làmmiñ moom. ak ak Sénégal moom. waaw léegi am na certificat. norme yi muy doxee. moom la norme yu nekk bitim réew di doxee. moom gaz doomu réew mi ciy liggéey. waaw gaaw na tabe na couleur bi l'islam. gaz bee tabe gaz bu tabe. waaw alaaji yow tamit nag. maanaam daal lu mu la bëgg a wax mooy. yaro kee Touba Gaz. c'est bëgg soxna yi ma boo doon waaw dégg na naan bi gaaw na tamit ñoo ngi ñëw de boo doon policier koo jàpp nit boo dee nit wax ñu ko ma ñëw mhm. ma ñëw soxna yi mhm. nañuy utiliser Touba gaz Touba gaz ndax comme ni koy saa di waxee rek magal gaa ngi ñëw norme yi ñuy defaree gaz bitim réew mhm. norme yi lañ koy defaree fii Sénégal ay doomu réew mi ñoo ko moom ay doomu réew mi ñoo ci liggéey dëgg la moo tax sax ñu jox leen loolu ñu naan certification ISO ISO ISO sakkan na am na sécurité couleur baa ngi ni verte ñu bind ci weex vert je crois que mooy verdure euh, naataange et tout et weex mooy couleur de l'islam. waaw man daal eh, eh, man daal weex mooy couleur de ah, <laughs> la paix. kaa ma xool weex mooy couleur de l'islam. ah waaw yoroo bi ak quantité ba ak la ca nekk ak lépp man intéressé wu ma tur wa ca tax rek jar na ma jënd. Touba de daal moom bëgg mu manqué biir Sénégal. waaw non kii màggal gi. day manqué. day lu ci usine bi defar ñu jënd ko. gaay lekk ko waaw lekk ko. waaw waaw léegi yoro yoro wooteel yoro yoro wooteel. waaw maa ngi leen di woo yéen ñii maa ngi woo ñëpp. képp ku képp kuy képp kuy artiste rek. Ah. képp ne bii ñoo bokk. waaw oh. <laughs> képp ku nga xamante ne bii artiste nga rek. maa ngi lay woo. Mhm. ci ci bis bi. woo. sunu grand yi fi ne yi nga xam te ne ñu ngi nekk ci musique bi di woo suñu yaay yi ñoom ñoom ñoom Sodo Mama ñoom Kinelaam ñoom Fatou Géwal mm-hmm. ñoom xaar euh, mbay ma jaaga ñoom ku lim joom maire yëpp waa Sorano nga ne ku lim joom ku lim juum juum ma gën joom mi de waaye tey plateau bi du fi am waaw joom mi lay wër ci ñun <laughs> autorité yi jàppale nañ la autorité bon en fait euh, autorité man li ma ah. gën a soxla daal gis naa ci benn annonce li ma ne xaw ma monsieur le président de la waaw mais loolu ñoom ñooñu ay suñuy njiit lañ wax dëgg yàlla koy jàppale war naa la jàppale wax ko suñu njiit yi ñu bu la jàppale rek wax ko yooloo bàyyil éco gi <laughs> bàyyil li nga mel yooloo bu la jàppale wax ko moo gën moo gën ku la jàppale ah. njiitu réew mi ah. ñëw njaay ñu tal tal nañ loxo ñëpp waaw nañ ci ñëw eh! demoo ci demoo ci jóp si bu fa dem de suñu xarit la kooku yoro waaw mais da ngeen moo koy transfert <laughs> ku ñëw it na <laughs> ñëw demoo ci Aïcha ku ñëwul it Aïcha Lo na ñëw waaw woo nañ ñëpp tàll nañ ñëpp est-ce que xam na ay nit ñooñu sax ñooñu Aïcha Lo kares doo fa dem seeti ko am na ñu ma xam de dégg nga mu naan am na ñu ma xam ah. yoro lekk nga. non yoro sax nga dara. non yoro ñam na dara non compaguma nag. non ñam nga non compaguma. léegi daal waaw damay sensibiliser waa xarit club na ñëpp jóg. waaw nag wax dëgg yàlla am seen bis la ñu jàpp ci. waaw xam nga mhm. léegi man mënu ma lim sama génération ak suñu ñeneen ñoom ñëpp ci lañ bokk. Mhm. feetu musique la quoi. le 5 décembre dama bëgg a ñëw partager ko ak ñoom. Mhm. ñu bokk ko quoi. entrée bi ñaata la. entrée bi 10 000 francs. 10 000 unique unique waaw. ban heure ban heure ba ban heure ban heure ba ban heure. 21 heures lay commencé. 21 mhm. heures c'est sûr ci lay commencé 21 heures daal lay commencé jeex ay minuit yi xam naa naa. ay minuit yooyu ñoo koy départ rek bu xam sa arrivé. waaw waaw. en tout cas la 21 heures bëgg nañ mu commencé. mais eh, surprise am na ca surprise bu ne nee une heure matin ngay jeexal boo jeexal mu coupé projecteur yi de. Ah, fu mu gannaaw lay dem ñu ko teel. ko teg xam nga paa. kon boog ji leer na waaw xam nga ko waaw paa bu xees boobu da koy coupé. <laughs> kon teel faa ñëw teel faa jóge rek. waaw moom hmm. gan yaag ñëpp toog mu ne la booy heure bi jot naa ah. Ah, ah. pël la. nga ne kay mu ne la booy heure bi jot naa ah. ngay dof dof lu mu coupé ko. pël la xanaa rocc visiblement. nii ah man de du ma tudd ay pël ak yooyu. non ni ngay waxee ni daa mel ay waxee noonu rek. ay nit man maa ngi nii daan waxee noonu. waaw ma lay wax rek daal. ah tey kontaan nañu waaw gaynde kontaan nañu. mais gaynde kontaan waaw billaay maa leen gën a kontaan. waaw kontaan nañu lool kontaan naa trop wax dëgg yàlla. waaw kontaan naa waaye le 5. surprise ba fa nar a am. ñun ñoo fay man xam naa surprise bi man waaye du ma ko wax da ngay surprise kenn du ko wax. surprise boo ko waxee yu bëri nga fa yu bëri sax. du doon gën ah, a na cat la xëy na lu leen muccal la. Mm. kafuma. Mm. bu ñu jullee gee rek nelaw. ñan. <laughs> ñan ñuy julli gee rek nelaw. wuy ma. bu <laughs> bañ a kontaan ñoom. buy buy lëndëm ñuy nelaw ay nitu Cees lañ. bala cinq. bala 5. incha allah bala 5. waaw amul benn problème mais kontaan naa trop kontaan nañu kon nañ delluwaat fa ñu jógee woon ci Mouhamed la sa jabar waaw sama jabar parfois am nay temps dama ko doon sax bëgg a kuntaabu ndax yow chaque jour yow lay wër ci internet bi say ba barki borom Touba ndeysaan ma ne hmm. du maa moom sama bopp waaw oh. paquet ma yóbbu <laughs> kon murit kontaan nañu kontaan nañu ñu ngi delluwaat sama jëmm ji hmm. doxal ko sa kër waaw <laughs> mu benn problème alaaji ku la génne fii euh, fii Diaspora. Moussa. Moussa défilé bi mu défilé keroog toj na réew mi. Moussa Diaspora Moussa Mbow Moussa Mbow wooñu. man yooyu rek ma défilé bi rek nag yéen. waaw lu tax ñun demuñu laa wax. ah boobu dañoo ne woon ci ci tournée bi. boobu ñu ngi woon fële Saint-Louis. ah yaa ngi koy fàttaliku. déet demuñu fenn. ah. <laughs> yéen a a grand kontaan naa ma gaa yee bul wax ak man gaa yee bañ a dem. bu leen ma kontaan nañ kontaan nañ jaajëf góor kontaan naa yow am jàmm rek. ci Mouhamed laa jëm nii jàmm rek. jërëjëf kontaan nañ dem ci Mouhamed toog naan la wala deuxième. incha allah Mouhamed mooy. booy caméraman yi euh, euh, kii euh, bu ñu laal baraada bi ñulul naa ko damay am beneen foofu nañ dem jaar foofu toog baraada bu waaye kon kon bés ba yaa koy toj de kontaan naa trop merci beaucoup merci merci. waaw merci merci waay. Euh, hmm? Samb merci. Hmm? waaw Cheikh gungal gan gi. Hmm? Cheikh dama la. waaw allo non damay gisee sama waa ji. loo gisee ak moom. ah Cheikh damay gisee ak sama waa ji nga ne ma lu tax ngay gisee ak moom. ah da ngeen may. waaw mais doo gungal gan gi. waaw 2 plus 1 égale 3. waaw mais gan gi 2 plus 1 fu mu nekkee. waaw yow demal Samb. Cheikh nga defe ni ñu nekkul nii ñëw. Ah. <laughs> Cheikh bàyyi ci dama koo soxla. ah waaw déet da nga koo soxla. mais kii yow lay xaar mais kii yow lay xaar. yaro jiituma ci Mouhamed maa ngi ñëw. Mouhamed waaw garaaw waaw Mouhamed ñaa la tudd. garaaw. <laughs> Baro wàccal yu wàccal wàccal plateau bi wàccal wàcc plateau ah, ah, du jeex ah.